seen dënd tey boo xoolee situation bi bu ñu ko deful histoire moo leen jugé tey conséquence acte président de la république bu mu jël Macky Sall xam na ni jeex na contexte boobu mun na expliquer tamit courage ñenn ñi xëy na bu demee neneen xëy na duñ ko def décision de trop bi moo tax ñoom tamit ñu fippu euh, décision bu mu jël décision historique la boo déggee n'est-ce pas nos partenaires comme américains ak ñoom seen lu ñu wax leer na le président de la république warul toxal élection bi loolu boo ko boolee à mbir boobu da nga xam ni daal ñi des ci wet président de la république Macky Sall ñoom tamit euh, dañ koy xam nañu ni du 2 avril nekkatul légitimement président la république du Sénégal te loolu daf koy neewal. mu ngoog muy wane ni Evelyne président Macky ci boppam mu ngi dund conséquence su euh, décision bi mu jël. mais au sein même de de sa coalition et peut-être même euh, APR tamit gëm naa ne bu ñu doxalee fii ak ay ay fan yu gis. ñoo xamante ne ñu ngi biir APR mais je suis sûre et ni ànduñu avec cette décision la te ñooñu bu may xool maa ngi leen di xoolee ci camp wu Amadou Ba. Mhm. Euh, APR euh, LD gis ngeen position bi mu am ba nga xam ni euh, seen ndaw député mhm. keroog teewuloon ci assemblée nationale gis ngeen ministre bi nga xam ni moo bokk si si si si ñoom doxalin gi mu am Zahra Iyane Thiam donte ba léegi tekkeegul ndombal tànkam def na fi ñaari sorte yoo xam ni wax na ni àndu ci mhm. bu nga xam ni tekki nañu seen ndombal tànk et comme ñii nuñ ko waxee je m'attends à ce que mu am yeneen i démission wala ay nit yoo xamante ne ni dinañ leen limoger mhm. parce que dégg nañu ni ànduñu ci ci ci ci boobu euh, ci boobu décision et euh, peut-être pour ñenn ñi c'est par conviction mhm. peut-être pour ñenn ñi c'est par conviction il faut rester sur les principes parce que c'est la première fois encore une fois dans l'histoire politique du Sénégal mhm. ñu euh, ñuy élection présidentielle ba pare moment bañ ko toxalee euh, moom moo moo doy waar en fait ñuy naan campagne électorale mu ngi door candidat yi tàmbalee nañu enregistré rek ñu naan toxal nañu ko par alchimie comme ça par magie ah euh, Benno lëkkaloo si ak ak ak PDS muy benn njabootu libéral bi rek ñoom ñi nga xam ne bëgg nañu des ci bopp réew mi ba 2035 ñu togg li ñuy togg euh, valider ko awale ko ci yoon ndax dañ koo togg ba pare awale ko ci yoon validé ko jaarale ko fi ñu ko war a jaarale ndax depuis keroog maa ngi doon wax Macky Sall wax na te déggoo leen ko benn yoon mu tudd le report du scrutin dafa ni mu ngi déglu waa assemblée nationale li nga xam ne moom la ñu moom la ñu nar a wax. Mhm. ñenn ñi peut-être également mën nañu quitter le navire ndax bu ñu gisee ni gaal gaa ngi commencé jël ndox. euh, la direction du vent quand tu fais la politique il faut savoir écouter la direction du vent te jamono ji ñu toll ni yaakaaruma lool ni euh, ngelaw gi côté gi muy jëm mu nekk ci côté Benno Bokk Yaakaar donc bu fekkee ni da ngay def politique bëgg nga am des ci politique bi fekk ay ati ati at da ngay teel a dégg ngelaw gi ban côté lay demee te ñenn ñi xam naa ngelaw gi sentir nañu ni demeetul ci côté Benno Bokk Yaakaar donc nañu wàcc dañuy wàcc gaal gi balaa muy digg muy gën a jël ndox euh, loolu ndax du euh, gën metti utile dialogue bi nga xamante ne moom la président Macky Sall woote bu fekkee ñi mu jiite sax mënatu leen contrôler. ça man logique pour logique dama bëggoon d' abord ñoom ñu dialogue seen biir d' abord bu ñu déggoo ba pare ñu soog a génn dialogue ak ñeneen ñi mais malheureusement fu mu toll ñoom dialogue wuñu seen biir parce que aujourd'hui mu neex mu naqari il a deux camps au sein de l'APR. cest à il y a des gens qui sont pour. Macky Sall les autres qui sont pour Ba d'ailleurs sax gis naa ay slogan ay affiches yoo xam ne dañu naan euh, Amadou yow rek li ñuy déglu donc ça veut tout dire ça veut que euh, euh, au, sein de la base déjà ci base bi déjà y a une fissure et fissure boobu noonu moo fës ba ci kaw tey on nous donc d'un conseil des ministres boo xamante ni dañ ko dañ ko toxal le matin la waroon am yóbbu ko 15 ba tey communiqué génnagul on ne sait pas ndax conseil la wala réunion de crise la mais li muy gën a niroo du conseil réunion de crise lay doon parce que fu mu toll ne yaakaar naa ne ndakam waxtaane wu ñu jafe-jafe ak sénégalais boobu ba léegi du léegi tey la conseil bi taxaw pour wax ci euh, fan la campagne mbéy mi tool jaay nañ gerte Sonacos ba léegi mi ne pat dégg nañ ñu ñuy yuuxu waxuñ ci loolu je pense que loolu yooyu la ñu waroon xaar mais li ma gis nii li ñuy waxtaanee jamono jii seen biir mooy réunion bi nga xamante ne moo daan nag naka lañu def ba mën a euh, sauver les meubles et malheureusement du mën a nekk parce que fi mu ko jaarale ak ni mu ko defee moo tax sénégalais yi ànduñ ci et malheureusement ñu tourner la plupart tourner parce que dañu laal loo xamante war ñu koon laal mooy le calendrier républicain c'est-à-dire Sénégal lu mu yaafus yaafus am na loo xamante ne aussi ñoon wax dëgg yàlla kenn waru ko laal boo ko laalee nag yii lay indi cest à jël ay décisions yoo xam ne yu impopulaire et tu fonces tête baissée Ablaye Wade disait pour finir que l'erreur est humaine mais la persévérance dans l'erreur relève du diable mu ngoog euh, Alassane ñu àddu jëmale ko ci leneen mu ñeel insuffisant wu Sénégal yi nga xamante ne dañoo nekk ci njàqare euh, li ko waral bu ñu sukkandikoo ci njiitu mouvement bi ëmb insuffisant wu Sénégal yi kit de branchement euh, bi ñu soxla ngir amal kon séance yi ci bërëbu fajukaay yi lu tolloog benn weer mu ngi nii mënuñu koo teg gët Cissé Sarr moom di ci joxoñ baaraamu tuuma pharmacie nationale d'approvisionnement ñu ond ci ak moom presque un mois ngi nii centre boo ci dem kit yi dafa manqué ñee tey buñ manqué lii suba ñële manqué lee boobu léegi nag ñuy wax tey jii dafa gën a pire parce que àgg nañ si kit de branchement ak débranchement sax amul tey buñ demee ba ñàkk kit de branchement ak débranchement kenn du jalis tey roi bu ne jalis yoon te suba man hôpital bi may fajoo démb kit de branchement ak débranchement amu fa donc léegi ñun fan lañ jëm te ñun liñ a na foo xam bu fa tolloo dañ koy naxtaan di ko wax nag am na foo xam ne bu fa tolloo bu ñu xëyee ba tey jii kenn branché kenn fan lañ jëm parce que bu ñu branché wul mën a am jàmm moo tax nag ñu ne lii toll na foo xam ne foog ñu wax ñu dégg ko ba Sénégal gépp dégg ko askan ñu dégg ko ñu xam ne vraiment lii tey y a problème dans les centres de dialyse fii ci Sénégal parce que amuñu luñ branché amuñu luñ débranché ba tey am na centre boo xam ne branché wul donc nañ ñu dimbali. lu tolloog un mois à la waxuma la sax c'est-à-dire waxuma la sax deux jours rek c'est beaucoup pour des insuffisants rénaux connaissant li nga xamante ne ci ñoom cest à quatre séances ou trois séances par semaine c'est-à-dire semaine bi boo ci deful séance bi rek yow daanaka tu es condamné nga toog un mois yoo xamante ni tu na pas a n'as pas à disposition ay te kit yooyu mooy tax nga mën a def dialyse parce que boo amul boo amul kit euh, branchement ak kit débranchement c'est-à-dire munoo dialyse mm-hmm. parce que dialyse dañuy génne sa deret raxas ko jaaral ko ci ay tuyau dellowaat la ko donc su fekkee loolu lépp le dispositif n'est pas là alors que da nga war a dund parce que da nga war a lekk da nga war a naan sa rein fonctionné wul ni ndox a génn génn mais mm-hmm. a insuffisance rek à 5000 impact ñi mu njëkk a mooy les insuffisants rénaux ça veut dire que c' est fragile vulnérable à limite bi nga xamante ni pour un peu ñu wuy ji barsax malheureusement au ñu toog wax ci yooyu on va parler de report on va nous parler diw day bokk diw du bokk on va nous parler de dialogue fii dialogue naan nangam nangam pendant ce temps ces fils de ce pays là ces dignes fils yi nga xamante ni xëy na sa amaana dañuy liggéey joxe seen lépp ba feebar fekk leen si ñu leen ñuy seetaan ñii dee à petit feu et on n'en parle pas et c'est ça qui est dommage et regrettable Ngok euh, Alassane ñu wax nag ci collectif interministériel bi ëmb agent administration sénégalaise bi ñoom itam sóobu nañu ci gréew euh, ñetti fan bu ñu tàmbali ci bësu tey bi euh, ñoom nag dogal bi nga xamante ne moom la ñu muy grève bi muy dogal boo xamante ne ni ñu ko jël ni ki démb ginnaaw bi ñu amee ab ndaje ak élimaanu jëwrin yi bu ñu sukkandikoo ci secrétaire général bu intersyndical bi Amadou Ba am na engagement yoo xamante ne jël na ko ci seen diggante ak ñoom ci seen i ay sàkkuteef euh, bokk na ci kon ñu lawal euh, indemnité de logement bi ba ñoom ñëpp ñu mën cee jot ñu endu ci ak Oumar Dramé promettre nañu dina apporter réponse par rapport ak euh, point yu ñu soulever d'ailleurs sax si la saisir ministère